dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. ami cher internet yéen ñi safoo di seetaan les patriotes TV dal leen jàmm si xibaar li gën a fës si xibaar yi nag gannaaw ki nga xamante ne moom moo di Bougane Gueye Dany nag gis ngeen ko moom nag dafa demoon seeti Ousmane Sonko nag te si ñëpp xam nañ nag dañoo ngi waajal bu baax a baax a baax li nga xamante ne moom moo di procès. suba bi di yemoog le 17 avril bi di lundi suba nag Bougane Gueye Dany nag ñëpp gën koo xam ci opposant bi nag gannaaw bu demee waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo di euh, président Ousmane Sonko li nekk ay image yoo xamante ne yu rafet la te tamit patriote yu bëri ñoo ngi commencé di ko di ko rafetlu quoi donc il va falloir ñoom ñëpp daal euh, ñu toog euh, opposition ñëpp ñëpp doon benn quoi su ko defee même élection présidentielle yi sax. tey si doon yi tamit mën na ñoo génn premier tour pourquoi pas mais ñoom ñëpp suñ boole wala ñu dem dispersé wu ñuy jaar ne nii jaar ne la moom pour ñu am ñu bëgg day doon lu jafe quoi leen rek lañ mën a def ngir lan ñu booloo duñ benn.